doglu boo xam ne boole na ci lu aju ci almudaaxala mooy buñ jaayee garab mbaa tabax na mu yóbbaalee suuf sa mu taq ak buñ jaayee suuf ba juboo rek di waxuñu dara na jëndkat bay moome la ca nekkoon ci tabax mbaa garab dana wax itam lu aju ci jaay meññet ak koo may meññetum garab gannaaw nga bëgg koo leb ko tuddi jënd rek waaye leb la xaw a nuru ak yu demee noonu daal lay wax fii bu ñu jaayee ab tabax mbaa garab te waxuñu suuf sa nga xam ne ca la tabax ba tegu mbaa ca la garab ga nekk du tee rek moom nga jënd tabax ba mbaa garab ga rek daal ne moom suuf sa tabax ba nekk mbaa suuf sa garab ga nekk lu may nag kay jaay dafa leeral ne ko dama lay jaay rek jëmmi tabax bi mbaa jëmmi garab gi waaye suuf sa bokku ca dafa wax rek pas-pasu njaay waaye bu doon tayle mbaa maye mbaa saraxe mbaa xubus li yépp noonu la bu ñu mayee mbaa ñu saraxe mbaa ñu xubus le mbaa ñu tayle tabax mbaa garab di waxaale dara ci suuf sa mu taq itam du tee suuf sa ci la bokk wattanaa walat xumaati suuf sa it yuutu na yooyu yaar mu ne ba tey ku jënd suuf fekk suuf sa amoon tabax mbaa garab bu fekkee ba ñuy waxante wax ñu dara ci garab yaag tabax ba kon moom ma jënd suuf sa daal nay moomaale tabax yaag garab ya su fekkee dañoo sart nag ne moom mi jaay kat jaayaliwut tabax mbaa garab mbaa lay aada foofu mooy kuñ jaay suuf itam taxul nag ca waxaale wa tabax mbaa garab duggaale ca kon di jàpp ca sart ba mbaa aada joojee wal basra ak jiwu wa dafa bëgg wax suuf si yóbbaale na lañ ci ji te saxut kuñ jaay suuf fekk ñu faraas ko ci misaal ba jëlañ ci loo xam ne daal moom saxagut bu jëndee suuf si daal lay moomaale lañ ci ji te saxut la zarha du ca gënu mbay kuñ jaay suuf nag fekk mu am luñ ci ji ba mu sax wala jublu ci mbay mi moom may jënd suuf sa su bëggee loolee ci sax bokk ca da koy sartaale ne damay jëndaale kat lee ci sax waaye bu fekkee sartaale wu ko dañuy jàpp ne suufu kese lañ ko jaay waaye waaye ki jaay moom moom loolee ci sax mooy nag jënd suuf itam taxuta moom loo fekkoon ñu suul ko ca suuf sa ku jënd suuf ñu gas ko génn ca lu mel ni wurus mbaa xaalis mbaa yi demee noonu nga caa suuloon rek taxul moom ma jënd suuf sa moom moomaale loola bu ñu xamee ka moom loola moo xam ka jaay suuf sa moo xam keneen la moom ma ko fa suuloon rek moo ko moom su fekkee xamuñu boroom te mënees koo xam nag ñu seet ba xam lu ab jullit masa moom la am déet buñ ci gisee mandarga mu wone ne bokkutoon ci moomeelu ceddo ya ñu njëkk lislaam mooy ceddo ga kon nañ koy jàppe por yëgle ko ba xam boroom dana feeñam déet su fekkee gisuñ ci lu wone ne ab jullit mas na koo moom nag ñu jàppee ko rikaas rikaas dañ ne woon ku ko for yaa ko moom waaye nag buñ ko defee juróomi xaaj ngay jox benn ba ilimaan jullit ñi téye nag ñeenti ña rikaas moom fa yakkoonu li waaji di si wayu xammas waxam nañ ko bañ tolloo ca buntu asaka kuy jënd ay garab yuy meññ fekk meññet nekk ci mu ñu góoral bu dee tàndarma góoral ga mooy ñu jël ca tóor tóor yi tàndarma gu góor ga def ko ca meññetum tàndarma gu jigéen ga loolu mooy góoral tàndarma bu dee nag leneen lu bokkut ak tàndarma ci xeeti garab yi moom ak góoralam mooy meññet ma génn bu fés boo xoolee xàmmee kook dëmmi garab ga ko meññ mooy guróosuhoo watamay yusuhoo xan asli bu dee suuf nag ak góoralam mooy lañ ca ji dem ba sax kon ku jënd garab goo xam ne dañoo góoral meññet ma bu dee tàndarma mbaa bu dee leneen meññet ma génn ba fés ñu mën koo xàmmee génn garab ga ku bëgg a jënd garab mel noonu te bëgg meneen bokk ca da koy sartaale ne damay jëndaale kat meññet mee waaye bu fekkee waxuñ ci dara moom jaaykat ba moom moom meññet moo mee bu dee suuf itam dañ ji ko ba mu sax ngay jënd bu bëggee loolee ci sax bokk ca da koy sartaale waaye bu ko sartaale wu dañuy jàpp ne nga jaay suuf sa moom moom loolee ci sax li tax mu ne nag kulluhu aw aksuhu maanaam buñ ko rélee léppi garab ya mbaa la ca ëpp mbaa bu dee suuf sa la ca ëpp dem na ba sax ba génn mooy ndegam lépp góoral nañ ko mbaa la ca ëpp góoral nañ ko dañuy jox àtte ba la ëpp te mooy ni nga dégg léegi ngay jënd bu bëggee loola bokk ca mel mu bokk ca kii jënd bëgg loolu bokk ca faaw da koy sartaale bu ko sartaaliwut du ca bokk dana wax nag buñ góoralee genn wàll ga te góoraluñu genn wàll ga kuy jënd ab jaam te bëgg alali jaam bi bokk ca danga koy sartaale wax kay jaay ne ko damay jënd jaam bi alalam waaye bu fekkee ne sartaaliwu ko ñu jàpp ne jaam ba rek lañ ko jaay ak yére yu mu sol di liggéey ku ko taat mooy xeeti mbay mi loo ci xam ne buñ ko daggee ba buñ ko sàkkee ba noppi maanaam mbir meññet ma ba day wuutal daal di saxaat leneen mbaa mu meññal leneen kay jënd bu bëggee lay saxaat mbaa lay jebbiwaat mbaa lay meññal bokk ca da koy sartaale waaye bu ko sartaale wut dañuy jàpp ne lee ñu séen rek muy feeñ fee mu nekk ci ba mu jënd moom rek la moom mel ne tool yi salade yi ak yu demee noonu nga xam ne def ay plan soo jëndee plan bi nga xam dem na bu mat ba mën koo dagg dañuy jàpp ne loolee feeñ ñu mën koo dagg rek leen di jaay waaye nag boo daggee loolu ba noppi la cay jébbiwaat jaaykat bee ko moom ndegam sartaali woo ko woon fekkee meññet ma ñoo góoral genn wàll ga genn wàll ga góoraluñ ko la ñu góoral dañ koy jox atte ñu ñu góoral te mooy kay jënd bu bëggee mu wokk ca faaw da koy sartaali bu ko sartul rek jaaykat baa koy moom la ñu góoralut nag moom mi jënd dal na koy moom mu ne ku jënd kër mbaa suuf lépp loo xam ne du tabaxtu garab waaye da caa sax nit ki ak léewukaay boo xam ne dañ koy yéege ci kaw wala jamono yu njëkk yi gën ñu daan wale daa dañ ko tabax ci tabax ko ci bun dëgër wala lu mel ne bunt boo xam ne mooy buntu nit mbaa buntu kër nga xam dafa da caa taq nekkul rek buñ dindi woon wéer ko fële moom daa taq ca néeg ba mbaa ca tabax ba mbaa lu ñuy yëkk dara loo xam ne dañ ko caa saxal loolu lépp ku jënd kër ga rek dal na koy moomaale bu dee nag lu mel ne ab lal wala lu mel ne armuwaal xeet yi nga xam daal mu mënees na koo jël yóbbu nekk lu taq ci kër ga moom bokk ci lu may koy jënd koo sartaale kon mën nga ne citerne xam nañ koo gas foofa defar ko fa duggaale na ci njënd ma lépp loo xam ne dafa taq ci kër ga rek sax fa rek ku jënd kër ga daal nga koy moomaale loo xam ne moom nekk lu fa sax bu wér wér kay jaay moo ko moom da koy daal di jël yóbbu lu may nag koy jënd koo sartaale woon kuy jënd ab jaam yére yi mu sol di liggéey rek jëndaale nga ko donte jamono fekku sax mu sol yére yooyee waaye nag yére mu waaje mbaa jeneen alalam moom ci jënd bu ko sartaale wut du ca bokk bu ko sartaalee mu bokk ca moo tax mu teg ci wala xaa neen na istiatu xaddamiha sart ñàkk dugub yére liggéeye ca jënd ga kii jaay bu ne kii jënd dama lay jaay jaam bi waaye yére mu liggéey moom dama koy téye dañuy jàpp ne boobu sart dañ koy wacc jàpp ne njaay mi dog na te kooku bu jëndee dal nañ moom jaam baag yére mu liggéeye ku sart sart boo xam ne duñ ko dee seet amul benn maanaa du ci zahir du ci baatin nga xam ne moom ko dégg xam ne mëttoon na sart ndax amul njëriñ ci baatin amul njëriñ ci wàllu zahir ni ki ci wàllu xeetu alal sart mel noonu dañ koy wacc dañ koo faale te du tee njaay ma dog ne jamono yu jaam amee mu sart ne ko jaam bi muy jaay day nekk ku mënta jàng mënta bind kooka nag daay ko jaam boo xam ne daa mën a bind dañuy jàpp ne ak mën a bind njëriñul maanaa la kon nag sart ne du mën a jàng du mën a bind deesu ko faale wala mu ne ko danga may jaay jaam bu jigéen bu nekk catholique mbaa yahud te moom mi nga xam ne moo koy jënd ab jullit la te amul beneen jublu boo xam ne moo tax mu sart muy yahud mbaa nasaraan te bu fekkoon ne da ko bëgg a defal soxna ak jaamam bu góor bu nekk nasaraan mbaa yahud loolu kon moom boobu sart bu ci amut mu sañ a xàcc waaye nag mu sart rek ñu jaay ko jaam bu jigéen bu nekk yahud mbaa nasaraan ñu jaay ko nag jaam bu jigéen bu nekk jullit te moom jullit la te amul benn xemeteef bu war tax muy sart bu nekk nasaraan mbaa yahud daal ñu jàpp ne sart la bu amul benn maanaa bañ koo faale jàpp ne njaay ma dog na du ko sañ a bañ wadaat islam mooy ku jënd am ku taq ci yow ci na nga jëndoo ne la lii maa ko moom ba nangoo ko ci yow ci yoon mbaa nga ci sikk soo xam ne nga ko caa jëndaale yoon dalay may bu dee dañ ko nangoo ci say loxo ci yoon nga dellu ci ko la jaay woon bu ci sikk suñ la ci jaayale amee nga sañ a dellu ca sikk sa nañ ko waxe woon ci teqale kii jaay nag bu sàttalee kii jënd ne ko dama koy jaay waaye lu yàgg-yàgg bu kenn waxee ba nangoo ko ci say loxo itam doo ñëwaat ci man baa boo gisee sikk itam doo ñëwaat ci man boobu sart dañ koy wacc jàpp ne kii jënd suñ ko nangoo ci loxoom ci yoon mu sañu ñëwaat ci ko jaayoon dañu bëgg ci sikk itam suñ ko ci jaayale sañu ñëw topp ko ci yoon bañte ko ci yoon loolu nag mooy ca bay ñuy waxaale la jaaykat bëgg a sart loolu te bu fekkoon ne dañoo jaayante ba juboo ba lépp jeex kay jënd nag moo warlu ne lu yàgg-yàgg daal du mu ñëwaat ci yow jaaykat bi buñ ko nangoo ci yoon itam mbaa ma ngi sikk itam day muñu rek waaye du mu ñëwaat loolu kon moo ko warlu buñ daan jaay jaamu jigéen boo xam ne dafa amee taar boo xam ne ku ma saa moom rek faaw ngay jotee moom mbaa amul taat sax waaye ki koy jaay ci boppam nee na jote naa ak moom day waxoon nañ koy tërtërloo maanaam teg ko ci loxo ku ñu wóolu ba xam am ndam ambut loolu mooy almuwaa baax bu kay jaay sarte ne nag lu yàgg-yàgg mu waa baxa du ci am juboo caag kay jënd dañu jàpp ne mu waa baxa boobu ak yàlla dañuy wàcc boobu sart di jàpp ne jaayante gi moom wér na dana wax ci kanam tuuti kuñ jaay meññet mbaa mbay bu ci jiyee amee ci sart yi dajee ñu war laa wàññi ci njëg lu tolloog la ci dal ci jiyee léegi nag buy sartantee ne bu ci jiyee amee itam moom mi jëndoon kenn du ko delloo dara dañu wàcc boobu sart te jàpp ne jaayante gi wér na du tee nag bu ci jiyee amee rek sart yi dajee ja ñu war koo wàññi lu tolloo jiyee ja ne ko dama lay jaay lii ci kaw bu weeru deexee nga fay ma mbaa daal tat sàngam nga may fay buñ ci àggee nag te fayuma nag moom kon jaayatuma la mooy sama yëf maa ko moom day mel ne mos noo seq dara dañuy jàpp ne boobu sart kenn du ko faale jënd jaayante gi wér na jaayante ga wér na te jëndkat ba njëgg rek la warlu war koo fay xeetu meññet wala xeetu mbay bu demee ba tàmbalee ñor rek doon sax tey genn tàndarma ci tàndarma yu bari mënees naa daal di jaay lépp ndax nam tàmbalee wane ak baax ba ràññi ko mën nañ caa sukkandiku awma asli yi nag mooy su fekkee day jënd la meññ meññet ma muy garab ak suuf sam taq kon daañu ko may sax mu jëndaale meññet ma noonee te meññet ma tàmbalee gutta ñor sax ndegam moom day boole jënd garab yeeg meññet mi kon mën naa jënd yëpp te meññet ma àggagul sax ci tàmbalee ñor ba tey bu fekkoon ne daa njëkk jënd garab bi kese ya nga xam ne meññet ma bokk ci woon garab yi rek lu jëndoon gannaaw ba daañu ko may mu jënd meññet ma boole ca doon sax meññet ma tàmbalee gutta ñor waaye ndegam moom jënd garab yi moo jiitu jënd meññet ma rek daañu ko may mu jënd meññet ma noonee te tàmbalee gutta ñor safaama nag moom la ñuy aaye daa jëndoon meññet ma kese di fekkul mu tàmbali woon a ñor gannaaw ba nag mu bëgg a jënd garab ya booleeg meññet ma loolu lañ koy aaye ndax lu mu njëkk a def daa aayoon mooy jënd meññet ma mbaa mbay ma te tàmbali gutoon a ñor kon nag dégam def na lu aay di jaay ko ko te tàmbali gut a ñor di mu bëgg caa teg nag far jënd garab ya boole ca dañ koy aaye day wane ne meññet moo xam ne tàmbali gut a ñor moom tey ko koy jënd moom rek lay jënd boolewu ca garab ya bala ñu ko maye day fekk lu mu néew néew ñu mën ko jëriñoo ci wet doonte sax xonte ak jur it dañu sart na koy dagg fa saasa saasa te fekk itam ñu aajowoo ko aajowoo ko mën naa doon lekk mën naa doon xonte ni ñu ko waxee woon léegi dañ koy boole nag waa barab ba bañ caa mànkoo di ko def lu bëree bëri bu ca waa barab ba mànkoo di ko bëri def rek ñu aay leen ko ndax jaay ma ñette fekkul sax mu tàmbalee wu na ñor daa xaw ñu ak yàq maanaam bu dee jënd meññet moo xam ne tàmbalee gu te ñor sax ñu sartante ni da koy jënd léegi nag te bàyyi ko ci garab gi mu ñor loolu des ko nangu aw itlaaq nag mooy bu jënd rek meññet ma noonu te tàmbalee gu te ñor te leerul ne da ko ciy bàyyi ba mu ñor am da koy dagg fa saasay saasa bu fekkee ne lenn ci garab ya meññ rek tàmbali naa baax jëm ci nu war a mel rek ñu mën caa sukkandikoo jaay lépp waaye nag dañuy seet xeet wu ne te bañ a jaxase yaari xeet bu fekkee leeree tànn ma léegi reseñ lay tàndarma bu tàmbalee ñor jëm ci nu war a mel rek ñu mën a jaay lépp tàndarma waaye du tax na ñu mën a jaayale reseñ ndegam moom reseñ ji tàmbali wuta baax jëm ci nu war a mel te it mu bañ a doon loo xam ne daa baaxoo jëkk a teel a ñor loo xam loo xam daa baaxoo di jëkk a ñor moom ak ñoram day rawante yi ci des kon moom rek la ñu mën a jaay waaye duñ mën a jaay la nga xam ne ca kanam lay ñor la nga xam ne dafa baaxoo jëkk ñor ab diir bu yàgg leneen door a ñor moom rek la ñuy mën a jaay waaye dis ko mën a bool la nga xam ne ci kanam li kanam bu yàggee lay door a ñor yokkafat loo xam ne ci at mi day meññ ci misaal yaari meññif yoo xam ne mënees naa xam ne meññif ya ba meññee may gu jëkk ga moom bu mu tàmbalee baax di mel jëm ci nu war a mel mën nañ koo jaay moom meññif googee mu ni waaye nag buñu àggee ci mu tàmbalee meññ meññuk ñaareel ga te tàmbalee guta mel na war a mel duñ mën a wax ne na meññi ko njëkk ga meloon rek ba mu tàmbalee baax jiitam noonu lay mel daal di bëgg a jaay meññi fukk ñaareel ga ku nekk day am àtte boppam bu dee tàndarma su jàngal ba demee ba xong cooy wala mu tàmbalee xong li ñuy wax roos kon jàpp nañ ne tàmbali naa jëm ci baax mu nees na koo jaay wa zuhurul xalaawati ak feeñuk neex ga bu dee leneen lu bokk tàndarma mel na resuñ ba figg bu leen la tàmbalee neex jëm ci ni war a neex rek ñu mën a jaay lépp bu dee loo xam ne li ci balaa ñor da koy dagg rënk ko ab diir mu door a ñor mel ne banaana léegi danga ko def nga xam ne du ñoree ca ndey ja da nga koy génne am foo ko suul nag mel ne ci ab xatax mu door a ñor lu mel noonu bu nekkee ca ndey ja ba nga xam ne léegi bu ñu ko daggee suul ko fañ koy suul rek mu daal ñor man su ko daal di jaay bu dee xeet tuur tuur la ñu xam ne tàmbali naa baax bu ñu mën koy jaay mooy mu tàmbalee fett maanaam bu lenn la yenn tuur tuur yi bu ñu fettee rek ñu mën caa sukkandikoo jaay yëpp yëpp xeet lu jum yi moom bu demee rek ba lenn la tàmbali naa baax bañ mën koo lekk mais naa sukkandikoo ci loola jaay lépp lu mel ni xeetu roofat ak xeetu bisaab bi ñuy jàpp di ko bëgg a jéeg yooyu yëpp bu àggee rek ci lenn la tàmbalee ñor ñu mën koo jëfandikoo ñu mën caa sukkandikoo jaay lépp maanaam bu dee xaal am na ci yoo xam daa baaxoo bañ a xong xam ni day roos ñu wax puur kon lenn la bu puuree rek baax na bu dee loo xam ne itam baaxoo wuta puur ca neex lañ koy xàmmee kon lenn la bu tàmbalee neex rek wala boog ñam wa ca biir nga xam ne moom la ñuy lekk ñam wa ca biir di mel na mbaaxoo mel rek ñu mën a sukkandiku loolu jaay lépp ndax kon bu duur salaa yi dal nay tàmbale bëgg wax ne pepp bala ñu ko mën a jaay dafa dem ba dijj na war a dijj moom pepp ma ba noppi nag bala ñoo mën a jaay pepp mu dem ba wow maanaam day dijj noonu ba noppi dem ba wow kon dool ko mën a jaay dañu woon pepp bala ñu ko mën a jaay dafa dijj na war a dijj ba noppi wow boole ci mu ne nag fekkee dijj na war a dijj waaye àggul ci wow dañ ko jaayee te kañ ko jaay xas na ko jël ba noppi nga xam ne kon xas na raw kon lañ def waruñu woon a song def ko waaye nag dañuy far bàyyi jaay gi yooyu noonu de su ko dindi te loolu kat mooy bu fekkee ne dañ koy jaay tot maag gubee yëpp rek noonu nga xam dañuy boole tot ma nam nekk ci guboo ñu def ko rek global jaay ko ko benn yoon nga xam ne mooy moom pepp maag guub ya nga xam ne ca la pepp ma taq nde su fekkee dijj na waaye woowagul moom di nangu ñu jaay la rek léegi pepp ma te guub ya bokku ci xam ne ñuy teqale jaay la pepp ma te ne la di pepp mi taq moom bokku ci te gis nga ne boobu fekkagul mu àgg ci wow faaw dañ koy dindi mënta ñàkk su demee nag ba pepp mi ma nga ca guub ya ñor na itam ba wow koŋ lay tax ñu mën koo jaay te kenn bojjagu ko ba jëri ko moo ñu juboo ci bañ ko bojjee ba jëri ko kilo bu ne nangam la ca fay moom mi jënd ñu jaay ko ko waaye duñ nangu pepp ma nekk ci gub ya dëgg la wow na koŋ ñu bëgg koo jaay nag global rek nga xam day moom lépp benn yoon dañuy juboo koy mooy buñ ko góobee ba bojj ko ba jëri ko moom mi jë juboo ne xaarlee kilo bu nekk nangam la koy jëndee te it dañoo sartoon lu mel noonu lu yàgg-yàgg balaa am fukki fan ak juróom nañu ko góob ba bojj ko ba jëri ko kañ waxaloon ci jënd ca kaw natt ka mbaa ca peese ka daal di mën a jënd loolu ci kaw la ñu waxante woon ci kilo bu ne mbaa andaar ju ne ci misaal lii ak jàpp ndal la su fekkee daa am ko may meññatum garab ne ko garab gi daal la muy meññ yow laa ko may bu dee meññet moo xam ne na dem ba wow waaye bu dee moo xam day tooy rek moom digéey desu ko ca man waaye bu dee muy wow daal bu ca sàttee dajee su meññet ma demee ba tàmbalee ñor rek mën nga koo jënd li muy wax jënd nag mooy leb rek mooy ñu toolool nu mu toll nga leb ko su demee nag ba tool yi ñor xaw nga fay ko meññit mu wow nga xam ne yow lu tooy nga leb ndax da nga koo may meññit mu nekk ci garab ba mu tàmbalee ñor ni mën koo jëfandikoo nag nga leb ko war koo fayee nag meññit mu wow kon loolu jaay lu tooy jëndi lu wow la dañ cee sart ay sart moom lay bëgg a wax buñ gam-gamlee ba ne lii ngay leb ci li nga ko mayoon ci meññet war naa toll nangam boo demee ba di ko fay lu toll noonu képp nga koy fay du ko ëpp du ko yées li ko may di ko leb na bokk ak la nga koy fayee mel ne doo ko mën a may meññatum tàndarma lépp ko di ko fayee reseñ dañuy sart la nga koy fayee ñu dañ koo takk ci da nga koy génn ci sa tool bii mbaa ci tool sàngam dañuy sart nga gàddu ko ci sa loos rek ameel ko ko moo xam yow may woon meññet mi moo xam da nga fee nekkut kala doon taxaw sa taxawaay day daal di amee boobu àtte ndax la tax ji li mooy du ñu wax ne bu xusee lépp day taxaw temm ci gaaw fay ko du bàyyi ba waxtu góob ba du bàyyi du bàyyi ba ci waxtu wa loola baaxoo ñor duñ sart ne faw da koy daal di gaawalal fay ga bokk na ci sart ya moom mi maye meññet mi mu tudd baat bi nga xam ne moom lañ baaxoo na tudd ci yarale maanaam ci maye meññet muy enra yarale na waaye bu tuddee baatub wahaba ba baatub manaxa ci xaalonk wala anta boobu sart xëtt na dañ ko bëgg a takk rek ci la ci cosaanoo woon kon na jëfandikoo boobu baat te it na fekk meññet ma ca ba nga koy bëgg a leb meññet ma tàmbalee baax jëm ci na war a mel muy wa badaa salaahuha te it loolee muy leb nar koo fay mu tolloog juróom wasq mbaa mu yées ko te bañ ko ëpp ndegam da koy leb rek nar koo fayee aw xeetam wa dem ba wow te buñ àggee ci jamonoy góob ga kon nañ am fuñ yemale lañ ko cay may ci mu leb ko juróom wasq mbaa mu ko yées kon lay doon ay noonu juróom wasq du sorenteeg juróom benni bërigo bu dee lu ko ëpp moom dam koy jëndee wurus mbaa xaalis mbaa yooyu moom mën na ko bu baax a baax doon ci tànn la mbaa lu ko ëpp sax waaye nag bu dee leb ya bu dee rek nag li ñuy wax leb ko di ko fayee ci waxtu fay wa moom du mën a ëpp loolu te it loolee muy leb mu jublu ci rek njekk maanaam defal lu baax kam mayoon meññet ma nit mu jublu ci du ci sonn dara ci meññet moom ko may ndax moom moo koy jël rek bu ñu àggee ci waxtu mu jox ko lu tolloog moom kon loolu noofalaay ca kam mayoon meññet ma wala bopp mu jublu caa dàq loolu boppam ba tey noonu la nit ki mu bañ rek ci may meññet mi mu dugg ci toolam di wër ba xam li mu ko mayoon ci meññet nu mu demee yooyu di gisaal loo xam ne ci toolam boo dee bëggatoon mu gis ko mooy lim ne aw daf xat ba fekkoon leb ga muy leb meññet moomee daa jublu rek jaay ko ci saa sa am ca coono ju bëree bëri mbaa sax amul leneen ci dëgg-dëgg lu mu ci jublu wéer wéer du njekk ca kam ko may du fekk lor kon du ko mën ndax kon boobu saa xëtt na li mu wax nii mooy dafa am garab yoo xam ne ci suuf la sax waaye yow moomoo ko bu garabee meññee nag nee na daañu la may soo bëggalee noflaay borom garab ya ba tey nga leb meññet moomee ñu seet na war a toll nag nga fay ko lu toll noonu mu mel ne ba nga yaralee nga xam ne moom suuf sa nga moom waaye garab ya yow moomoo ko garab yi meññ nag ñu defal la njëkk lu toll ne nga leb meññet moomee ñu seet lu toll ak moom nag nga fay ko ko ci waxtu wa nga koy fay waaye nag boo waxee lu xas ci maaroof yi nga ci boole faqat dong bi yoon moom boo ci namalee njëkk borom garab yi rek nga koy sañ waaye boo jublee na dàqal lor sa bopp sax du tax nga jëriñ ko mooy laa in xasatta dafa baradin wa awla xadamu xas ji cheyin bu fekkoon ne nag ngay jënd meññet ci wurus mbaa xaalis mbaa geneen njëg moom gu bokkut ak di ko fay meññet kon dara nekku ca da nga ko mën ci duñu sart benn sart nee nañ sax fii nga toll ci garab yi ak jàmbur moom ci sa tool nga bëgg a leb meññet ma da ngay boole ci sart yi yenn ci ya nga weesu woon ci yarale ga bu dee charte boo xam ne mën naa am fii na amee foofa